saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa diggante Modou Lo ba ñu jàpp ne njortu na ne dana am coowal combat Modou Lo Ama Baldé dana amam du am léegi pënd ba gannaaw ba ñu amee njàqare ndax ki war a taxawal combat bi mu ngi ci loxoy yoon moom Luc Nicolaï fa mu nekk la nekk confirmé combat bi ne dana am rax ca dooli ne premier face to face imminent moom Luc Nicolaï jox na feu vert ay partenaire ngir ñu démarrer combat ba lépp lu ñu war a démarrer ci na leen feu vert ngir ñu démarrer ko waaye guddi yi doom jëwi li Nicolaï mooy njiit la mooy doxal foofee Lo daal di feeloo ne combat waxoon naa ko dana am te Luc Nicolaï te waxtaan nañ lu yaatoo yaatu ci combat boobu loolee moo waral moom Birame Gningue muy avertir ñaari camp ya rax ca dolli ne Modou dana dellu siwaat ci Dakar ci ay fan yu néew képp kuy amateur te doon xaar bile combat royal boo yeboo defaru jël wutil bi wala njëgu billet te xam ne le 26 combat bi dana am beneen combat bay am mooy ba ñu taxawal démb diggante Gris ak Abdou Diouf le choc des lourds en juillet 2020 loolee 2018 dafa bëgg delluwaat ca phase rectificative ba bile combat mu ngi amee ca stade Ely Fall bu njaareem waaye Abdou Diouf mbir moomee la bëgg raxasaat est fa mu dal baax na loolu mooy laaj bi ñëpp di laaj Gris mi nga xam ne rëg-rëg moo ko freiné le 15 juillet 2019 ci moom l'enfant noir de Fass li mu bëgg mooy rectificative boobu relancé waat journal ba xam ne bile combat daal choc de relance la pour ñaari mbër yëpp muy Abdou Diouf bokk diggante Petit Niang ak Bulldozer ko jàpp le 1 mars bile combat diggante Malika Mbooloo la ak Ikiri ba Assane jàllee mu ñaa production moom it teew na taxawal ab combat diggante Lassandeer ak Rëm taxawal na ko jàpp ko le février ca Bargny diggante Bébé Daaro ak bu ngéwél gi moom it le 29 février la ko jàpp Franc ma déclaré ne Papa magam la fu mu jëm foofee la jëm journal ba xëy na wax ca la mu xam le mooy

nañu ko de gestion de pass aj nañu ko ñetti comité yooyee ñoo dajaloo daal aj booy fay la xam le mooy dalee na arme blanche rax ca dooli tifaar leen ay saaga ba ñu tooy loolee moo waral ñetti président yi comité ya dajaloo daal koy aj ñaari weer toftal ceeb amaandu bu mu war a fay fu ñuy jeexale mooy ca jigoo ak combat ba muy préparé le 22 juboo ci ay kàddu ngir mu bëre la muy xaar mooy adversaire na xamagul kan lay dajeel Ndiambour mu ne dama faa toog ñaari at mënuma am combat li ni moo tax ma bàyyi leen fa dem sàkku xam-xam ci Père Birahim Ndiaye ndax mu mën a am combat jërë ngeen jëf mbokk yi ma nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah